والقلم وما يسطرون alhamdulilah tey jii dañuy tàmbali euh, concours bi concours yaatal mbindum alquran ci demi-finale yi kon ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñëw nañ ngir bokk ci concours boobu di ñaan yàlla suñu borom yombalal leen ko defal leen ci ndam mu am tomb yoo xam ne baaxoo nañ koo fàttali kenn ku nekk na ko dégg te it ah, na ci tënku ndax mooy waral mbir mi dox ci nos ba àgg incha allah bokk na ci tomb yooyu ku ci nekk na joxe téléphone bi mu yor. diirub liggéey bi bul jëfandikoo téléphone bu ci wax bu ci wuyu bu ci xool dañuy aaye kenn waxtaan ak moroomam buñ xasee ba tàmbali mbind mi bu kenn wax ak sa moroom ba ba noppi bokk na ci ba tey bu kenn yor am mbind bu kenn yor am mbind moo xam alxuraan la moo xam xasida la di ci xool moo xam alquran la moo xam xasida la bokk na ci ba tey ku noppi ku noppi na génn ku bind ba àggal rekk na nga génn jataay bi bokk na ci ba tey ku xas ba bind ba noppi ba jébbale saw kayit doo ko laajaat doo ca dellu ku xas ba jébbale saw këyit ak loo mën a bàyyeek loo mën a yokk doo ca delluwaat bokk na ci it nga xam ne mbind mi jataay bi ñetti waxtu lay doon ñetti waxtu yoo xam ne kenn du ko yokk ñetti waxtu képp bokk na ci robo ngay bind walla laaj bi ñu la jox fi mu tàmbalee ba fi mu yem ngay bind te nga sàmmoonte ci lépp lu concours bi laaj concubine laaj na sag mokkal laaj na it nga sàmmonteeg rasmu muy mbindiinu alquran wi laaj na it nga sàmmonteeg mbind mu rafet bi maanaam mbindum réew mi mokkal gi sàmmonteeg mbind mbindiinu alquran wi sàmmonteeg mbindum réew mi ba tey bokk na ci aaye nañu nga bind ba noppi di ko foto nga bind ba noppi di ko foto bokk na ci nga joxe sa carte d'identité ku ne ci yéen na joxe carte ndax ñu xam ne moom mii mooy diw moom mii moo bind lii bokk na ci ku ne ci yéen dina am koo xam ne mooy muraqib moo koy contrôler ñeent ñu ne kenn moo leen di topp di leen surveiller su boobaa yitte joo mën a am bul jug fi nga nekk na ko wax ki nga xam ne kii mooy sa muraqib moo lay contrôler euh, muraqib bi it du jóg déplacé bu demal ba am ngànt am lor na wax ak ñiy coordonné liggéey bi laata muy jóg waaye bu mu jékki-jékki rek jóg moom muraqib bi koo xam ne kii de da ngaa tardé yéex a dikk ba liggéey bi tàmbali it heure bi moom fi mu war a yem buñ fa àggee sa waxtu jeex na sa waxtu jeex na jumtuwaay yi ñuy bindee muy xalima gi ak daa ak këyit gi kooku yow yaa koy indi yow miy def concours bi xëy na ñi ci nekkul gan xam nañ lu tax ndax waa kër gi C3S ñoo daan indi yooyu yëpp waaye buñ ko indee ma noppi ñuy concours day jàmbat këyit yi baax na gii baaxut day seeb bi yi baax na daaji baaxut su boobaa kon léegi bàyyee ko ak kii def concours mu nekk këram waajal daawam waajal xalimaam waajal këyitam ba wóolu ko ba bu dikkee du ci am dara lu mu jàmbat euh, yi ñu wax nag yi ñu fi wax koo ci xam ne kii da nga koo teb bi juuyoo ko moom su boobaa loolu mën na laa nga ñàkk sa concours kon ñu ngi sàkkut ñëpp dañ sàmmonte ak moom yi leen ñaanal yàlla euh, ndam wasalaamu aleykum wa wa barakatu ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun